mécanisme ku ci mën a ànd parce que ñun ñëpp nangu nañ ni que yonent yàlla la ñun ñu bokk ci askanam donc mënuñu def lu dul ñaawlu ko mënuñu def lu dul mettitlu ko. très bien. Mhm. léegi lan moo tax président Macky Sall. wax mhm. naa ko léegi ngay avant ngay agsi. Mhm. buñ ne Charlie Hebdo mu taalee fii avion bi dem ba France di leen jàppale ci Charlie Hebdo. di défendre ay liberté d'expression. bi yoon ñu xas yonent bi mu toog fi mu toog ñëwul sax def Twitter. ñemewul wax ñemewu ci ñaawlu dara. xam nga bu président de la république demul woon défendre liberté d'expression yooyu ngay wax kon xëy na doo toog fii sax ba ñemee wax li ngay wax. déedéet xam nga ñu ñëpp nag ci réew mi lañ nekk am nay jamono liberté d'expression bii nga am ba ñemee toog ci télé sax di ŋàññi moom doxalinam amu fi woon. ay nit a xeex ba lépp da ko fee jiitu moom waaw no xaaral rek ma wax la buñ dégloonte am na ay jamono lii nga wax nii ñemewu ko journaliste ñemewu ko woon wax ci réew mi ay nit a xeex neew mu président Macky Sall mhm. say moroom samay moroom ak ñi ñu jiitu ñoo xeex tey ba nit ki am sañ-sañu wax xalaatam amul kenn kuy rafetlu caricature yi ci yonent bi amul ak nit ki loo ko bañ bañ bañ bañ nag nangul ko ngëm-ngëmam parce que ngëm-ngëm yàlla rek a ko mën a àtte loolu mooy benn beneen bi ci des da ni président de la république du Sénégal président de la république du Sénégal nekkuñu ci président islamique du Sénégal ay jullite fi ëpp waaye attewoowuñu ci charia attewoowuñu ci sunna république laïque la ñu wax loolu posture la tey jii ñi ëpp ci sénégalais yi bu ñu d'accordoon ni que ñu teg charia Macky Sall li charia wax lay def mais ñi ëpp ci ñun tey dañoo d'accord ni que dañoo am option wu ni ci république la ñuy dunde république dafa am nu muy doxe république xamul diine la religion dans la république c'est la laïcité laïcité mooy lan laïcité mooy mooy amul référence yi ci xalaatu nit xalaatu euh, ay doomu aadama la ñuy dundee charia mu ñi li yàlla wax la ñuy dundee. yàlla ban république moo xamul diine ndax république. nono euh, non euh, c'est-à-dire république. ban république en notion de république. Mm-hmm. niñ ko tëggee. Mm-hmm. ak ni ko théoriciens yi expliqué. ni ko ñan tëggee. waaw ñi wax ci république bari na mais ñun république bi am ci inspiration bi république française la. république française la ñoom laïcité la ñu def ci suñu constitution du Macky Sall moo ko wax 67 pour cent wu sénégalais dañ ko confirmer ci référendum bii ñu passé nii ni que principe bi c'est la laïcité donc nañu Dakar ñu bañ a indi jiixi jaaxa bañ a topp wax ji ci république lañ nekk. alors c'est intéressant li muy wax nii parce que le temps bi ñu bi ñeneen ñi jël pour jox continuer seen république. ñun dafa mel ni taxaw seetlu boobu ak contenu boobu dafa amul parce que li mu wax nii c'est important mu ne république xamul diine mais république boobu boo jëlee république bu France effectivement mais c'est une longue histoire bu aboutir ci la loi de 1905 bi nga xamante ni moo séparé l'État ak le clergé parce que ñoom jàppoon nañ ne à un moment donné clergé bi dañ ko dafa am nu mu doon jëfandikoo ngir empiété ci nga xam li nga xamante ni moom mooy la gestion des affaires publiques au service de quelques personnes donc loolu moo tax ñoom à la suite d'une longue lutte ñu ne nag il faut séparer les deux mais est-ce que nous avons la même tradition est-ce que wax ne c'est pas un peu violent ci réew moo xamante ni daanaka bu fekkee am na ñoo xamante ni c'est des non-croyants et ça tournerait autour de 2 pour cent wala 3 pour cent parce que islam moom moo fi nekk ak clergé bi donc ñëpp ay woy gëm lañ nga ne république xamul diine loolu nan nga koy layele non. surtout ci doomi non niñ koy layalee niñ koy layalee c'est que moo tax man la nañ d'accord ci ban principe la ñuy wax nañu xam ci li ñuy wax mhm. république fii nii boo ko fi waxee ñu ci bari borom xam-xam yu bari mhm. référence yi ñuy jël ay Montesquieu lañ lay wax bon yooyu lañ lay wax loolu moo fi am est-ce que matal nañ ko processus de maturation bi est-ce que egg na wala eggul mhm. en tout cas à chaque fois que ñu changé fii constitution bi c'est la majorité de Sénégalais qui se prononcent man jullit àqan laa cest à gëmuma leneen yaakaaruma leneen lu dul ki ñu wax ni que dañ ko caricaturer ah il faut que ça soit clair mais dañ maa nekk ak samay nawle nekk ci réew yonent bi ci boppam ba muy dem Médine ba muy njëkk ñëw Médine du woon charia sallallahu alayhi wa nekk na ak ñu gëmul ak ñu gëmul bu dee famille de pensée boobu man famille de pensée boobu laa bokk mais fii Sénégal ku laal constitution bi yow yaay njëkk a jóg daan ni ñu ngi bafoué lii ngay wax nii mais ci république lañ nekk moo tax man ni la da ngay def la part des choses. donc ban liberté d'expression le président Macky Sall demoon défendre parce que bu fekkee ne. xam nga Macron dafa wax ne. Ah. la France ne renoncera pas à la caricature. président Macky bi fekkee ne attaqué nañ Charlie mu dem. défendre yi ban liberté d'expression est-ce que dañu dafa d'accord ci droit au blasphème. non xam nga man ak yow mënuñu bokk euh, euh, munuñu bokk gis-gis. Mm. te mënoo mënuñu bo mënoo bokk ak sénégalais yu bari gis-gis. Mm. ci li tax mu dem. Euh, France mm. manifester contre Charlie. am na ñu fa dem pour rafetlu caricature yi. am na jullit yu fa dem pour ñaawlu ni que ñi ngi yàq deru l'islam parce que l'islam santaanewul ay attentat c'est deux choses qui sont très différentes man xëy na manifestation ba mu amee mënoon naa dem parce que d'accord ma bokkuma ci ñi gëm ni que war nañu sanctionner ñoo xam ni seen yoon nekku ci pour défendre des principes yoo xam ni man dama jàpp ni que c'est de l'extrémisme ma mën ko firnde ci diine mën ko firnde ci ngëm-ngëm am ci xalaat boo xam ni xëy na mën na bañ a bokk ak yow sa xalaat am ni mu amee hmm. jullit yoo xam ni dañu jàpp ni que ñoom noonu lañ ko xalaatee dañuy xeexal diine mais man noonu laa jàppe ni que noonu loolu munoo koy def ni da ngay xeexal diine. yàq deru diine. yàq deru diine la. alors réponse bi nga xamante ni ma Mouhamed. Ah, réponse bi nga xamante ni may ma ma eggale rek. donc ñi ñu bari ñu ngi wax ni que président boo waxee ñu ne que dem na ni il est Charlie pourquoi xalaatoo ni que président dafa dem ñaawlu ni que moom diine bi mu bokk santaanewul ñu rey nii nii. mais loolu dañ ko faa wootewul loolu moo tax. déedéet non ñu jàppante woon François Hollande nag wanewuñ loolu. déedéet déedéet non. dañoo bind carrément brandir ay pancarte ne je suis Charlie ils ont ils défendaient des principes président Macky Sall rek nekk foo woon est-ce que droit au blasphème ci la bokk non mais le droit au blasphème n'existe amul kenn ku koy mën a cautionner. non Macron moo ne la renoncera pas à la caricature. donc moo tax ma ne est-ce que droit est-ce que liberté d'expression mm-hmm. aussi est-ce que dañ cee war am. Mm-hmm. benn entendement boo xamante ni ñëpp lay concerner wala kenn ku ci nekk da nga koo war a jox. benn benn contenu adapté à tes réalités. commencé ci table bii nga nekk liberté d'expression moo tax ma Macoumba Beye daal di jàpp. Mhm. daal ni mag yi dafa demoon Charlie pour défendre ay caricatures. non liberté non non nañ dégloonte rek <laughs> on peut se comprendre. Euh. c'est-à-dire du dem ba France pour xool table bii ñu toog liberté d'expression moo tax moo may ma Macoumba Beye mu wax xalaatam jàpp ni que Macky Sall dafa demoon Paris pour défendre caricature yi. liberté d'expression boobu peut-être ak man jege bu ma ko jege moom ma may man tey ma tax ci table bi ni la demu fa woon pour défendre caricature yi mais dafa dem woon pour défendre ni que diine bi mu bon santaanewul ngay def ay attentat di rey ay innocents. mais monsieur le ministre monsieur le ministre nga baal ma ma ma ma yokk si pour parler plus simple aux Sénégalais quand même lambda. Mhm. qui ne comprend pas. pourquoi waxali wolof waaye tu parles au euh, Sénégalais lambda. lu ne <laughs> comprend pas lu tax mhm. euh, bi yi amee en France président dem fa. Euh, te suñu président de la république du Sénégal nga xamante ne réew bi nga xam ne accueillir na le sommet de l'OCI organisation pour la conférence islamique président sax amoon na ci yaakaar naa ne Abdoulaye Wade amoon na ci taxawaay bu mu ci amoon mm-hmm. ki ko fi wuutu tamit taxawaay boobu lañ doon yaakaar ci moom mm-hmm. ne musulman la jusqu'à preuve du contraire mm-hmm. lu tax rek pour parler au Sénégalais lambda yi nga xam ne boo nekkee ci réseau yi li ñu wax jaaxle ci pataaraloo Macky Sall lan moo tax dénoncé wul li nga xamante ne extrémiste bi ngeen di wax moom moo continuer waat rek ci li ñu caricaturer euh, le prophète Mohammed lu tax yëkkatiwul kàddu wax ñaawlu comme ni mu ko defee woon te change nga munoo ko reprocher loolu pour deux raisons sénégalais yi ñoo ko reprocher non non xam nga tamit il faut ñu d'accord tamit te nangu li ñuy wax man du ma mën a nangu li tax ma ne la dama tànn émission bi parce que ay journalistes ñoo fi toog du ay animateur dooy animateur de xool naa bu baax balaa may ñëw te wax Mame mbay ma woon ak mii du benn <laughs> parce que léegi il faut ñu nangu. léegi bàyyi nga defante. non non du question defante mais il faut que ñu nangu. <laughs> Mhm. tamit kii wax. Mhm. na xam li muy wax. kii wax na du du ko teg ci sénégalais yi nee nañ kenn demul natti sénégalais yi nee nañ sénégalais yi ci liñ d'accord mooy fal nañ président de la république diw moo ci topp diw moo ci topp. président sénégalais li nangu mooy diw moo ñuy représenté diw moo ñuy représenté loolu la ñu xaymaagul ñoo toog ci benn télé rek wala toog ci benn rajo rek wala toog ci benn station rek parce que yaa ngi xool Facebook xam nga sànq laaj nga waa ji lu tax man amuma compte Facebook nekkuma ci réseaux sociaux yi li may def politique lu tudd certains dinañ ma critiquer am naa ay ay rak ay xarit yuy animé page yi muy wax mais man personnellement je ne ça me ça me permet de régler un problème parce que ñi ngi nax ñu bari naan leen man la kii ay kii ay affaires yooyu. Mm-hmm. je ne suis pas nekkuma ci réseaux sociaux yi awma penchant boobu pour deux raisons parce que parce que dama jàpp ni que c'est pas la majorité au Sénégal bu fekkee politique bi électorat ngay ut du réseaux sociaux yi dinañ ci ñëw bu ci kanamee ñaata sénégalais ñooy xëy am connexion ba mën a wax seen xalaat Facebook. léegi lu tax ngeen pour wax non mais ça ça rentre dans le cas loolu stratégie globale la stratégie république la hmm. mais dama ni mënuñu xayma ci li nekk ci réseaux sociaux yi rek daan ni loolu la sénégalais yi xalaat c'est totalement différent de la réalité parce que da ngay gis nit mën na am vingt comptes wax yow mii liir nga defe ni vingt personnes la <laughs> fekk benn nit la chaque jour gis nga fi tey jii nii xëy na li ñuy wax après bu ñu ko daggee di nga ci gis 150 commentaires xëy na ñaari nit a ko def. Mhm. Mohamed nga baal ma rek bala ngaa jàll ci deuxième thème bi. thème bi waaw euh, boo nee Mame Mbaye ma woon. Mhm. boo ko ak mu léegi mi loo ci jublu. non je veux dire je n'accepte plus dootuma nangooti di wax ay wax yoo xam ni teguwul ci dara. màgg nga daal. no du question màgg na cest à dama gis ni que ñu fenn kanam gis nga ni caricature yi nii niñ koy ñaawloo. boo gisee nit ñi xadar gi ñi àndal am na lu gën a yées caricature yi lu nekk ci ñun te dindi wuñ ko mooy xëy di wax ci loo xamul dara xëy di wax loo xam ni tegoo ko ci lenn du ci dëgg du ci farata du ci xam-xam menace yooyu moo gën a dangereux ci réew mi mais pas que Macky Sall dem na nee na nekk na Charlie Macky Sall condamné na attentat yi Macky Sall y un problème profond amee ah, mais mais xam nga euh, monsieur le ministre. Mm-hmm. man sax loolu laay wax pour ne pas dire chef de cabinet. Mm-hmm. ndomba tànk ni moom du fi jógee. Euh, boo jegee président comme ni ñu ko waxee man je suis waaw waaw chef de cabinet du président de la république euh, ak ni nga jegee président tey boo fi teewee. lu mm-hmm. bari ñu bëgg koo xam ci moom surtout taxawaayam ci li xew ci France yoon la ñu laaj la ko. waaw waaw voilà très moo moo tax mais dañuy jàll ci beneen ponk.